اوكي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نيجي سانت سوني بروم سبحانه وتعالى من ورسغلات نو داجي تي اب نيغم فسيني جيل بن بند ci li nga xam ne di ci ko téere bi nga xam ne ki ko bind mooy Aboubacar Aljazairi rahimahullah mooy minhajul muslim ñu yegsi woon ci ñaareelu wàll ci li ñuy tudde aadab jëloon nañ la nga xam ne mooy adabu niya mooy la aju ci wall yéene tey ñu war a jël الأدب مع الله عز وجل mooy yéen teggin la julit war a yoral boroomam subhanahu wa taala di fàttali it ne tey jii moo nekk fukki fan ak juróom ci weeru chaaban di tombeek ñaar ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 Euh, képp ko wax fukki fan ak juróom ci Chaabaan kon xam nga ni daanaka xaaj na na nga jëm ci geneen wàll ga nga xam ne mooy teeru shahru Ramadan di ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala na yàlla fekkeloo ñu ko ci jàmm ca euh, barkeel suñu fekke kon bu dee mbokk yi gis nañ fi ñu waree a jàng tey day wax ni. al adab ma allahi azza wa jal jullit bu ñu ko laajoon waaw jullit moom nu mu war a tegginoo ak boroomam jalla wa ala dana ci indi juróom-ñaari mbir yoo xam ne jullit war na koy bàyyi xel mbir mu jëkk mi al muslim yanzuru ila ma ila ma lillahi taala alayhi min minanin la tussa jullit dana jëkk xool ana lan la yàlla subhanahu wa taala baaxe ko ci loo xam ne nii kenn mënu koo peeg loo xam ni kenn mënu koo peeg wa ni am la tuad ay xéewal yoo xam ne kenn mënu koo lim istanafatuhu min saati uluqihi nutfatan fi rahimi ummihi suñu borom mi ngi tàmbaleeg yow ba ngay nekk toqamani yu ci sa biiru yaay ñu noonu nekk fa benn cellule borom bi fekk la foofee wa tusaayiruhu ila an yalqa rabbahu azza wa jal ba nga nekkee tuqumani yu noonu la yàlla ànd ak yow ba baa ngay dajeek moom ci bis bi ngay dee amul benn waxtu woo xam ni suñu boroom seetaan noonu la la lu dul yow nga daal di faatu <clears throat> loola tax suñu boroom mooy alxayu alqayyum mooy taxawe lépp fii nga toog nii yow xoolal su xol bi mi ngi mi ngi mi ngi dox ku ko doxal sa service sa euh, li nga xam ne mooy sa deret ji ni muy dawee ku ko doxal <coughs> sa poumon yi ku koy ku koy contrôler kon yàlla moo ànd ak yow loolu tax na ba jullit fa yashkuru llaha taala alayha mu war ci moom muy sant yàlla ci xéewal yooyu <coughs> bi lisaanihi bihamdihi alayhi bima huwa ahla mooy mu commencé ci la miñam <clears throat> ci sant yàlla <clears throat> ak it tagg ci loo xam ne yàlla moo ko yeyoo <clears throat> wa bi jawaarihi bi tasxiiriha fi taatihi gannaaw ba ay cëram yépp mu tàggat ko ci jaamu yàlla <clears throat> kon mbokk suñu boroom a ngi noonu moo ñu bind ci coobareem amul kenn ku ko ñaan bind ma <clears throat> moo ñu bind ci coobareem indi ñu ci kaw suuf ci coobareem di ñu taxawu ci coobareem suñu làmmiñ war a sax di ko sant wara a sax di ko tagg asana mooy cant gu tegaloo moo tax suñu boroom waa ji buy julli bu ne alhamdulillahi rabbil alamin <clears throat> sant ñeel ne yàlla suñu boroom ne malaaka sama jaam sant na ma soo ne arrahmani rahim yaay boroom yërmande jaay boroom ñeewante bi mu ne sama jaam tagg na ma ngi noonu kon ñu war sant yàlla ca lam <clears throat> sunu cër yi it ñu war cee sant yàlla <clears throat> nuñ ciy sant yàlla duñ ko jëfandikoo lu dul ci li ko neex <clears throat> ca bés bu néegi it ngay bàyyi xel loolu la yàlla may ñaata la ko xañ waa ji taxaw naan alhamdulillah ñaata muumo ñoo nekk ci kaw suuf mënuñu wax alhamdulillah sa loxo yii ñaata ñooy mbindaafan yu nekk ci kaw suuf amuñu ay loxo amuñu ay tànk kon loolu <clears throat> da nga war a sant yàlla yëg ni xéewalug yàlla la waaye nga fexe ba doo ci def lu dul lu neex yàlla jalla wa ala yow mi yor sa téere mu ne fa yakun haada adaban minhu ma allahi subhanahu wa taala <clears throat> loolu day dana nekk teggin ya ngay tegginoo ànd ak yàlla is laysa min al adabi laysa min al adabi fi cheyin kufraanu ni am ne xam ngeen ne du bokk ci teggin mukk weddi xéewalu kala xéewalal wa juhudu fadlil munim agit weddi xéewalu at yi koy xéewal wa tanakkuru lahu wali ihsaani daa di fakk ñeel ko fakk ca may weddi la nga xam ne mooy rafetalam wa in amihi ak xéewalam wallahu subhanahu wa taala yaqul wa ma bikum min ni'matin fa min allah suñu borom nee na xéewal ngeen am ci la jóge te loolu it mbokk julit ko bàyyi xel boo xëyee suba taxaw xoolal ñaata xéewal daj ci yow ngir loolu mën a am kenn mënu koo fekk sa xéewalu xel mi sa xéewalu wér gi sa xéewalu noyyi gi sa xéewalu lépp xéewal yépp ci yàlla kese la jóge même xéewal yi jaar ci keneen daa jaar ci moom waaye ci yàlla la jóge amul koy dajeel mu yëkkati mille francs jox la lu dul 1000 francs yooyu yàllaa ko dogaloon muy sa wërsëg mu jaare ko ci moom bu jaarul woon ci moom jaar ci keneen mi ngi loolu la jullit war a gëm xéewal yépp ci yàlla la jóge nga gëm ko sa biir xol làmmiñ bi it tagg ko comme niñ ko jàngee sànq wa yaqulu subhaana suñu borom mi nga wax ba tey ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su doon da ngeen bëgg a natt xéewali borom bi di ngeen ko mën a peeg mi ngi noonu ba dajale woon tous les scientifiques du monde ci congrès un ñuy bëgg a xam xéewali yàlla def ñel doomu aadama mënuñu ko pekk danañu fàttali suñu mbokk ba El Hadj Fadior Gueye na ko yàlla yërëm <coughs> daana wax ne doomu aadama buñ ne ko woon kaay dañ la yóbbu ci benn île nga war fa dëkk loo bëgg rek waxal loo bëgg da ko fa fekk waaye nag loo waxul doo ko fa fekk de mu ne buy dem di dee <laughs> ñu ne ko lu tax mu ne bu dee ab caamee ne day wax na garab yee doy na lekk yi doy na lal yi nangam na lépp fàtte oxygène bi muy war a nooyi te oxygène bu ko amul day dee am déet gis ngeen ñii di dem ci naan dañuy dem ci weer week ak satellite yi gis ngeen yooyu ñuy këppoo oxygène dañuy jëli fi yóbbu ndax boo passé fu rek amatul oxygène kon ay xéewalam kenn mënu koo peeg kenn mënu koo peeg ñu waxoon doomu aadama chaque minute ban chaque seconde ñaata million de cellules ñooy dee ci yaramam am yeneen yu leen di remplacer loolee mbokk da ngay gis lu yéeme de suñ ne doomu aadama dafay de cent milliards de cellules les dix ans cellules dem yeneen remplacer leen loolu kon c'est des millions par minute fi nga toog suñu borom mi ngi lay defal loolu sa biir yaram ndax loolu mën nañ koo peeg laa mënuñu ko peeg borom bi wa yaqulu jalla jalaalu suñu borom mi nga xam ne moo màgg ca tedd mi nga wax ne fazkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun mu ne ew eh waay dee leen ma fàttaliku ma leen di fàttaliku dee leen ma sant ca bu leen ma weddi mu ngi noonu ca it mbokku juri dafa war a sax di sant yàlla mooy ba ba daanaka 30 ci gannaaw sun maam yi xamuñu woon na nga def mooy sant yàlla ba mbir yi ñu soppee léegi sant seen diw waaye mbokk yàlla rek moo jar a sant ndax yàlla rek moo yor xéewal ñu ngi noonu loolu kon mooy génneeku bu jëkk bi ñaareelu génneeku bi mooy ban mooy yanzuru almuslim ila ilmihi bihi wa itlaihi ala jamii ahwalihi jullit ngir mu mën a tegg nag boroomam war nay bàyyi xel ci ni suñu boroom day mi ngi koy gis di xam mi ngi koy xam li nekk ci moom te di ko gis ci mboolem looy def rek <coughs> xamal ne yàlla mi ngi jàkkaarloog yow ndax suñu boroom mu ne inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fi ard wala fi sama yàlla dara réeru ko may ne tey doom aadama nay gis ñu bëri caméra surveillance yi ñuy def seen kër seen bureau la ñuy nekk wala bitim réew di contrôler lépp lu nekk seen biir kër amma suñu borom yàlla subhanahu wa mu ne dara réeru ko laa yaxfa alayhi shay dara réeru ko kon yaa ngi gis ne yàlla ngi lay gis <coughs> moo tax mu ne fa yamtaliu qalb fa yamtaliu qalbuhu minhu mahabatan wa nafsuhu lahu waqaaran wa mu nekk am yëg-yëg ne yàlla mi ngay koy gis fu mu mën a toll ku mel noonu xolam dana fees lool ci wekk gu muy wekk yàlla ba du bëgg a wax lu ko neexul du bëgg a def lu ko neexul bakkanam ba yi toroxlul ko màggal ko te dangay gis ne doomu aadama bari na ci nit ñi lool am na façon bi naa yoo xam ne da doon seen sëriñ la walla kenn ku ñu rus luñ bëggoon a wax ci lu bon buñ gëstoo ah, rus naa diw sax rus nga moos wax lu ñaaw ci kanamu kenn koo xam ne mën naa fën yàlla yéen waa ana yàlla mi nga xam ne moom dara réeru ko nag kon yàlla moo gën a yéen ñu koy rus moo tax mën a fa yaxjalu min maasiyatihi wa yastahi min muxaalafatihi wal xuruj an taati noon la jullit doon koo xam ni day am gàcce di jéem a mooy boromam di am kersa di juyoog boroomam wala di génn ci la nga xam ni moom mooy la nga xam ne mooy ak toppam te it euh, loolu la yonente bi alayhi salaam daan ñu ñaan istahyu min allahi xaqal xaya ay waay di leen rus yàlla ni yàlla yee ñu rus ko ko ah yu mu yàlla yónni yàlla nu mu yee ñu rus rus ko ko mu nekk rus yàlla war nañ sàmm bopp ak lu mu ëmb bopp lu mu ëmb làmmiñ ay bët ak ay nopp fexe ba sa làmmiñ wi sa bët sa nopp doo ci def lu dul lu neex yàlla mu ne mu xool biir ak la mu ëmb biir lu mu ëmb ëmb nay loxo ëmb na ay ëmb na pay ñu ngi noonu muy saawara nga fexe ba loolu yépp nga sàmm ko rus borom bi jalla wa ala def ci lu jaaduwul moo tax fa yakuna haza adaban minhu ma allah azza wa jal loolu day dana nekk teggin ñeel ko mànd yàlla is laysa min al adabi fi cheyin an yujahira al abdu saydahu bil maasi ndax ku ne xam na ne bokkul ci teggin ab jaam jàkkaarloog ab sangam di ko moy ay moy aw yuqaabiluhu bil qabaih war razaid wala di ka teeroo la nga xam ne mooy ay ñaawteef ak yu suufe wa huwa yashhaduhu wa yanzur ilayhi fekk mi ngi koy fekkee di ko gis te tey jii bari na lu bari ci ay nit suñ nekkee ci service di def na ko sudul noonu yëpp su bu ñu yëgee ne directeur bi mi ngi jàkkaarloo ak ñoom lañ doon def yëpp dañ ko soppi inspecteur baa ngi jàkkaarloo ak ñoom lañ doon def yëpp dañ ko soppi lool it gis nañu ne ki xam ne yàlla mi ngi koy gis ba pare mu wëlbatiku di def la ko neex loolee mbokk da gis na jaaduwul loolu tax ñoom yër sab téere muni so soo ci alquran suñu borom muni ne ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara yen ci yàlla no waxon na xetam andalu teewon ngeen yaakar yoral yàlla ak toroxlu te moo bind xalqan min baadi xalq atwara mbokk yàlla mi nga xam ne moo la bind jële la ci toqamani yu jaarale ci deret jaarale lu mu yàpp def lay yax wodd la ba nga jekk wàcce la nga doon doomu aadama ndax kuy ki mel nii yeeyewul nga toroxlul koo way hakay xanaa tey nga ko bañal ay moom la def toqamani yu dina def deret di la wëlbati di la wëlbati bañaloo ko woon dara kon yàlla moomu ndax luñ ko toroxlul ñeen ko hakay suñ borom wax ba teyit mu ne yaalamu ma tusiruuna ma tuulinuun yàlla li ngeen di wax ci suuf xam na ko li ngeen di wax ci kawit xam na ko ndafuk arab ya pa yeggoon nañ ci buñ masaan bëgg a wax njombe dañuy jël benn mbaat yu muuroo ko déeyoo ci seen biir ndax nee nañ yàlla lu ñu wax ci kaw dana ko dégg <laughs> suñu borom mu ne bañu ine yastaw shawna siyaabahum ay yaalamu ma ñu ngi noonu may siroon suñu borom subhanahu wa taala mu ne li nekk seen biir dënn yi sax xam naa ko yaalamu sirra waax fa bi ma fi li nekk sa waxagoo ko sax xam na ko bal li nga xamagul sax wax na ko man na ba xam ne yaalamu sirra xam ne nëbbu na sax xamagoo ko yàlla xam na ko ci yow gis ngeen kon mi ngi noonu borom bi waxaat ba tey ne وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن خمال ندو من دو نكتي بن بير دو توك موك دي القرآن ولا تعملون من عمل دوغن جف بن جف إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه لدن يالا نيغي نيك دي اجي سيدي تي سن كاو جامونا جيغن تي واتي دي كاريف وما يعزب عن ربك خمال ندو رتش سبروم من مسقال من مسقال ذره ci lu toll ne pépp poussière fi la ard wala fi sama na doon ci kaw asamaan wala suuf amul lenn lu ci rëcc borom bi jalla wa ala te li la koy xamal bàyyil ba mu taw rek nga jël pépp dugub bu ndaw dem ca tool yi nga ji ko nga xool balaa yàgg rek nga ñëw fekk yàlla jaar nag moom fa mu jaar ak moom génne ko loolu it muy wane ne yàlla dara du ko rëcc maadaama nag yow jullit xam nga ni foo mën a nekk yàlla mi ngi jàkkaarloo ak yow looli dana tax ba sa teggin sa digganteeg moom nga rafetal ko kon ñaara ngoog ñetteel bi wa yanzuru al muslim ila ilayhi taala wa qad qadira alayhi wa axza bi wa axza bi nasiyatihi jullit day gëm ne suñu boroom ko am kattan la ci moom te yàlla mi ngi jàpp ci càmbaru jéem ay kenn rëcc ko wa annahu la mafarrun wala mahrabun wala manja wala malja'a minhu ila ilayhi amul fu waay mën a dem amul fu waay mën a daw jëm amul fu waay mën a daw rëcc amul fu waay mën a làqu mi ngi noonu ba mucc amul fu waay mën a dem di fa làqu ba rëcc ci yàlla xanaa lu dul dellu ci moom mooy yàlla kenn mënu ko rëcc xanaa lu dul ko daw dellu ci moom nee xale bi def njombe papam di ko wër ba jàpp ko xam ne ne mun taraw mu ñëw sukk ci tànk yi papa baal ma papa baal ma ndax xam ne ni loolu rek ko fi sës suñu borom yàlla nag na noonu la amul kenn ku mu bëgg a bëggoon amul kenn ku mën a dox su diggante ak bu ko defee julit bu xamee loolu fa yafirru ilayhi taala wa yata mu ngi noonu bay yatarraxu bayna di loolu tax day war ci julit muy daw di jëm ci yàlla di toroxlu di wàcce boppam ci kanamu yàlla wa yufawidu amruhu ilayhi jël mbir yëpp delloo ko yàlla wa yatawakkal alayhi daa di wakkirlu ci yàlla fa yakunu hadha adaban minhu ma rabbihi wa xaaliqihi lii day day nekk teggin diggante moom ak bo boroomam bi nga xam ne moo ko bind is laysa min al adabi min fi cheyin alfiraaru mimman la mafarra minhu xel mënul nekk ngay ci teggin ngay daw koo xam ne mënoo ko daw wala al ictimaadu ala man la qudrata lahu wala ngay sukkandiku ci koo xam ne nii ah, amul kattan ci jàppale la wala wala al ittikaalu ala man la xawla wala quwata illa billah wala ngay dem di ah, sukkandiku rek di sàkku ndimbal ci koo xam ne amul pexe wala muy am kattan te it mbokk julit loolu léegam mooy yàlla kenn mënu koo rëcc yonent bi nett nañ ci ben histoire ah, bo doy war ci ñu jiitu woon benn góorug chamien wo dom yi ah lu ngeen xam ci man akhna bay bu baax rek lu ñi tax lu ñi taxawoo day dom taxawañu ko mun ko wax ngeen deug de waye nak sama ak sama borom day bis bu ma yalla jappé dana mu mbugal mbugal bo xamni ne du ko mbugal ab jaamam <laughs> waaw def na ci njombe yoo xam bu ma yalla jappé du baax de xam nga lu ngeen def bis bu ma dee na ngeen ma taal lakk ma ba ma def dóom <coughs> ngeen jël bingin bi xaaj ko benn bi ngeen nem tasaaru ko biir géej beneen bi ngeen tasaaru ko ci digg àll ba ah bim mu dee yàlla gaay bàyyi xale yi defal ko loolu bañ paree suñu borom borom kun fa yàkkoon na ko suñ caam suñ caam taxawaat jàpp taxaw fi benn place mu ne ko suñ caam li nga def lu ci xiir mu na ah, yàlla ragal sa mbugal rek mu ne la gis ngeen yonent bi alayhi salaam moo ñu netti lolu lu tudd lepp sallallahu alaihi wasallam waaw kon julit da ngay gem ne mbokk yalla ken du ko rëcc ki demone kaw avion explosé avion ba tak ci kaw ba jeex de ken gisul sax lu dess ci mom ña ca nekkoon yépp suñu borom xam na fuñu jaar ken du rëcc ñëppay ñëw yombal qiyam gis ngeen borom bobu kon lolu la ab julit wara gem euh ah, motax suñu borom ni ma min dabbatin illa huwa aqizun bi nasiyatiha amul benn kuy dox lu dul yàlla jàpp ci càmbaru jéem nit la jinne la gaynde la jaan la amul lenn lu mën a jóg wala toog wala avancé wala lu mën doon lu dul ci kàttanu yàlla ci yàlla huut loolu la waxoon xeetam bañ naan koo gis ñu lu dul illa taraka baadu alihatina bi suu sa wax yëpp xam naa sunu yàlla yi rek moo la sadd mu ne leen dem leen yéen ak seen yàlla yëpp ngeen waaj man maa ngi wékku ci yàlla rabbi wa rabbukum mooy seen sama borom seen borom ma min daabatin illa huwa aqizun min nasiyatiha mi ngi noonu tax jullit du ragal ku dul yàlla wolof day wax lu ci bëri loo xam luñ ko jëf waaye wolof moom ragal yëpp yàlla la gis ngeen jullit du ragal lu dul yàlla yàlla waada gis ngeen kon <clears throat> lu mën a doon yàlla moo ko moo yor di def ci moom lu ko neex suñ borom it noonu la ba tey mu ni fa firru ila allah inni lakum minhu nazirun mubin eway yéen nit ñi daw leen jëm ci yàlla yàlla ko bëgg mucc ci moom da ngay daw jëm ci moom def ay ndigalam bàyyi ay tereem mi ngi noonu wa qaala wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum muminin suñu borom it mu ne ngalla waay na ngeen wékku ci yàlla su dee ne kay yàlla moom ma gëm ngeen ko loolu mooy kon ñaareelu mbir mooy ñetteelu mbir bi ñu <coughs> ñeenteelu mbir bi wa yanzuru al muslim إلى إلتاف الله تعالى به في جميع أموره جلت غير متغن برامم ورني باي خل نيون تي يالا ام تي موم تي بودمي ميرم والى رحمته له ولسائر خلقه اك يرمان بي يالا جاغلل كو اك جاغلل كو مبولمو من دا فنام يي فيتما في المزيد من ذلك بوكو ديفي مو ياكار يالا دولي خيول يوي fa yatadarra'u lahu bi xaalisati darraa wa du'a nekk di toroxlu ñeel ko ci li gën a sell ci toroxlu ak ñaan wa yatawassalu ilayhi bi tayyibil qawli wa saalihil amal di jokk ci yàlla ci wax ju teey ak jëf ju baax fa yakun haza adaban minhu maa allahi mawlaahu noonu lay nekk teggin digganteem ak yàlla mi am féeteem mbokk suñu borom da ngay gëm ni xéewal yi nekk ci yow yëpp moo ko moom moo la ko jagleel ñaar man caa am lu nekk mën na ko yokk lu ko neex mën na ko nangu am déet lu nekk rek mën na ko yokk te lu ko neex mën na ko nangu looloo tax ba jullit day toroxlu ci yàlla suñu borom mu ne la in dan na ko su dee yéen a ngi sant ma yokk leen su ngeen weddee sama mbugal lu tar la comme nag xam na ne xéewal yi ma yor ak li keneen yor kum mën a doon ci yàlla la jóge man danaa jéem a toroxlu dell ngir yàlla sàmmal ma sama xéewal yooyee yàlla yokkal ma xéewal yooyee moytu yàlla di nangoo ay xéewalam gis ngeen is laysa min adabi fi cheyin al min al nekkul ci teggin digganteem ak boroomam nga dem ba doon koo xam ne dangay ngay dindi sa yaakaar ci ak yokkute mi ngi noon min rahmatin wasi'at kulli cheyin jullit dem di dindi yaakaaram ci yërmande yàlla goo xam ne peeg na lu mu mën a doon lu mën a doon loo mën a yaakaar rek suñu borom yàlla yërmandeem ëpp na loolu kon jullit du teggi mukk yërmandeem ci yàlla mi ngi noonu doon ci bakkaar yu mu def la wala xéewal gu muy yaakaar la wala lu mu mën a doon toujours dafay bàyyi xel ci yàlla walla wala alqunuut min ihsaanihi qad amma albaraya jullit du dem mukk it di ñikki ay dagg yaakaaram ci mbaax goo xam ne yàlla ëmb na ko mboole mindaa fanam wal taafin qad intazamat al wujudu ak it ñeewante goo xam ne nose na mboolem loo xam ne ni am na amul luy am lu dul yàlla ko taxawee du malaaka du jinne du nit lu mën a doon ma tax suñu borom mu ne wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmaande moo peeg lu mu mën a doon lu mën a doon rek ci yërmaande yàlla la nekkee te it yërmande yàlla boobu pekk na lu mu mën a doon ñu ngi noonu borom boobu wax ba tey ni allahu latifun bi ibaadi xam leen ne yàlla day dafa ñeewante ay jaamam mbokk yàlla dafa ñeewante ay jaamam ñeewante ay jaamam munta paase saay-saay bu bon ba firawn mbëru ci kaw suuf ne man xawma ku ñu war a jaama ku dul man mbëru di rey bani israil di jàpp defi jaam suñ borom mën a Moussa dem leen wax ko wax ju teey ngiree mutu tuub ma baal ko ndax gaa yi ñeewante mën naa paase li mi ngi soo demoon ci euh, leen ci téere bani Israël dañ ni na saay saay ba ba mu demee ba di mëdd xam suñu borom dane xasaf naa bi bi daari la ard ba mu demee ba tremblement de terre bi di ñëw ah, kër yi di dem xaaruna de gis kër yi di dem di dem moom it mi ngi dem mu ne ay Moussa Moussa ñaanal yàlla Moussa ñaanal yàlla ñu ni ah, Moussa ne yàlla mëddal saay saay la rek <laughs> borom dana wax Moussa lu tax xaaruna bi mu lay sàkku yow ah, yërëmoo ko mu ne mu ne ko kii am saay saay la rek <laughs> soo ko bàyyiwoon ne day ko dal saay saay suñu borom ne ko bindul rek waaye bu doon mën na woo. man danaa ko yërëm loolee wax nañ ko waaye nag bu ñu xoolee dëgg-dëgg it wérul parce bu ñu demee ba mbugal di wàcc foofa la nga xam ni nii mooy tuub du jëriñ foofu gis ngeen firawun bi mu bi muy demee bay lab yàlla la woo amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu israil suñu borom na ko al an ah nga koy wax loole mi ngi noonu waaye ala kulli xaal gis nañ ne ci nature doomu aadama léeg-léeg gis nit ki def loo xam ne nii da ngay bëgg doo ko baal jamais au jamais Moussa masalan wax na wax na suñu borom firaw na yàlla bu ko bal muko <laughs> yaay rek wastud ala xal bu ko bal muko mais loolu yàlla nangu ñaan gi mais bu nangu bu yàlla nangulun ak ñaanam firaw na lim def ci lu bon lepp mu tuube yàlla bal ko am deet mi ngi noonu kon loolu kon yàlla dafa ëmb jaamam yépp loolu tax suñu borom yow mir sab téere mu ne wala tayasu min rawxillah e eh way bu len ñikki ci xettalik yàlla loolu yanqub mi ko waxon dam ya bañi ñuy wëri yusuf bañi dem ci misra mu ne bu ngeen demé gëstu leen ci mbir yusufa te bu leen genn seen yaakar bu leen ñekki ci xettalik yàlla te lolu mbokk mooy julit julit du décourager jamais jamais walu sëy la wàllu liggéey la walu febar la walu mën doon yow dal de sabab rek te bu décourager jamais gis ngeen euh la borom bir mu ne la taqnatu min rahmatillah bu leen ñikki ñàkk dagg seen yaakaar ci yërmande yàlla loolu ibrahim mi ngi noonu wala boog suñu borom moo ko waxoon suratu zumar di wax naan ay yéen samay jaam yi jiggi dawee ci bàkkaar li leen tere lépp def ngeen ko d'accord waaye nag laa taqnatu min rahmatillah man bàkkaar yi dama koy jéggale gis ngeen jàll wa ala juróomeel bi suñu borom jàll wa ala mu ne wa yanzuru al muslim ila shiddati batshi rabbihi wa ila quwwati mooy jullit it war na ngir tegginoog boroomam muy bàyyi xel taraayu jàpp yàlla mooy yàlla comme jàpp doo ko rëcc de ak kattanu ni muy wa ila surati xisaabihi fa yattaqihi bi taatihi ak na di xisaabi looloo tax jullit di ragal yàlla ca topp ko wa yatawaqaahu bi adami masiyatihi di fegu ci moom ci bañ koo may fa yakunu haza adaban minhuma allah loolee day nekk teggeen ñeel ko ànd ak borom bi jalla wa ala te mooy kon juróomeel bi gannaaw jullit bi muy bàyyi yërmande yàlla muy bàyyi yet xel kàttanu mbëggalu yàlla jalla wa ala mi ngi noonu suñu borom subhanahu wa taala mu ne afa amintum man fi sama an yaxsifa bikum al arda fa ida hiya tamur fi ngeen toog ndax am ngeen kóolute yàlla xar suuf tremblement de terre musulen ko dundu de waaye ñaatoo ngeen ko gis ci ci ci télé bi han dëkk yi dul jeex mi ngi nonu turquie iraq afghanistan philippine ak nangam ngeen gis ay dëkk leum xëy xëy rek ñëpp deewoon na ben yoon kon lolu julit di ci baye xel gannaaw ba yit mune iz laysa min al adabi inda zawi al albab an bil ma'siyati wa zulm al يتعرض بالمعصية وظلم العبد ضعيف الآجز aziz al qadir mu ne nekkul ci teggin ñeel ñi nga xam ne dañoo am xel yow nga doon ko lot doon ko néew doole nga jàkkaarloog buur boo xam ne ku tedd la borom kattan la ba pare nga sax di ko may te xam nga ne mënoo dara ci kattanam wal qawiyu al qahir wa huwa yaqul borom kattan googu borom notaangi googu xam na moo wax ci ci téeréem wa ida arada allahu bi qawmin suan fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min waal heure bu yàlla bëggee mbugal ay nit kenn mënu koo teggi amul kenn kuñ mën a laq ba mu ba leen gis loolu mi ngi noonu wa yaqulu is inna batsha rabbika la shadid suñ borom mu ne sa jàppug borom day lu tar la naam ni muy jàppe kenn du ko jàppe wa yaqulu wallahu azizun zu intiqam suñu borom it yàlla mu ni yàlla ku tedd la ca kuy fayu kuy mbugal la ay jaamam dara bi ma mujj def ci benn jàkk fële ci point e benn waay laaj na fa benn laaj imaam man daal dama jàpp ne yër yàlla ni ñuy waxee yërmande mëpp yërmande way jur yi nangam nangam est-ce que du aj safara dañu ko wax rek pour tiital ñu waaye bu ñu demee ñëpp lay dugal àjjana <laughs> ma ne ko loolu jullit du ko wax jullit da ngay gëm yërmande yàlla gëm bëggul yàlla boo ci weddi rek sa diine yàqu ni nga gëmi ne yàlla noonu la tare yermane non ngay gëmé yàlla non la tare mbugal ni ngay gëmé aljanna ngay gëmé sawara amma so demé ba weddi sawara sa dina yaquna lolou ñu bàyyi ci xel bu baax yàlla moy shadidul iqab moy ghafur rahim gis ngeen juróom benneel bi yalla zurul muslim ila ila allah azza wa jalla inda ma'siyatihi wal khuruj an ta'atihi heure bu julit demé bëgg mooy yàlla génn ak toppam wa kana waiduhu qad tanawalahu wa azabuhu qad nazala bihi war nay bàyyi xel ni mel ni ni tëkku yàlla yi yegsi na ci moom ci mbugalam wàcc na ci moom wa iqaabuhu qad xalla bi saaxatihi te it mbugulum yàlla mën naa wàcc ca foofu mu koy defe mi ngi noonu te it mbokk ak bari ñoo xam ne fañ doon mooy yàlla leen yàlla mbugale أفأمن مكر السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم جمعنا بغي دم دي توكي دي دف مبن خنا خمولي فوف يالا من الله فاجابي بسنين كما ينظر إلى الله تعالى عند تاعته جريتك نون لي خولي إربوي جام يالا دي كتب واتباع شرعياته أم ينغي نونو وكأن وعده قد صدقه له نون لي جاكتني ملني ديغو يالا بي موم ميغي ني سما كانام هر بو جوغي دي جولي جي بايل خل ني ادنا داي ماغي ياكر يالا دوغال ما ادنا هر بو وور ياغي ياكر ادنا دنج تو دوغو الى اخري لولي داي دون لاي صورلو وكأن حلة الرضا قد خلعه خل قد خلعها عليه غاي رسن جورتني يالا دال غرم نمو ndax lii may def su ma neexoon du ma ko def maa ngi koy def ci yàlla tax kon lii del mën na ma jural ngënamal yàlla mu rafet njort ci yàlla fa yakunu hadha min al muslim husni zanni billah loolu moom la ñuy wax julit war a rafet njort ci yàlla wa min al adabi husni zanni billah bokk na teggi ni rafet njort ci yàlla bokk na ci teggin rafet njort ci yàlla is laysa min al adabi an yusi al mar'u zanna billahi fa ya'sihi wa yakhruj an ta'atihi ndax demee ko ci tey gën mukk jullit dem ba ja daal di génne njort bu rafet ci yàlla jàpp ne man alku naa kon léegi lu ma neex def loolu mbokk c'est très grave mi ngi noonu sama mbokk ba Cheikh Lo mas may nettali benn góor goo xam ne ku doyoon waar la ci jamono mag ñi jamono pes bi mu daan am bu ma saan ko dañ ko joxoon ay tissu pour léegi nit ku dee dañ koy jël suul ko su banqué day xool benn camion bu kii rek mu jekkili ko dem suul jël pisi ba dem jaay xam nga loolu c'est da daan wax ah man daal au du ma sonn xam naa ne sawara lu mu xat-xat am naa fa pànkare <laughs> waaye mag kooku bu la ñëwee ku ko waar day xam ne loolu mu def c'est extrêmement grave mais su bi yàlla baal ko am déet kon dem ba nag yaa génn sa yaakaar ki yàlla loolu si ba la moo tax waaye zunna anna xayruhu mutalla'un alayhi soo demee ba jàpp yàlla gisu la ولا مؤاخذ له على ذنبه ولا غادم با جابني يالا دولا جاب سا يوي ييب مصيبه لا سوني بروم موني ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يني غي دمن دي جورتني يالا دو خام لو بري لي نغي ديف وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحتم من الخاسرين با نين ديمي نك با جارتو جورتو بو بون تي يالا لولو مولين جاب با نين بوكو تي ني perte كما يومير سبتير بتي كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه غير مجاز بحسن عمله بكل تيتين يانجي جامو يالا رجل يالا بفر جابني يالا دولا فيل باخ دهيرين دهيرين فن جورت ولا هو قابل منه طاعته وعبادته ولا دمب جابني يالا دولا مسك جامو يالا دهيرين julli du yegg foofu mukk day rafal njort ci yàlla wa huwa azza wa jalla yaqul suñu borom yàlla moo ni wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun borom bi nee ne ku topp yàlla topp yeneen tam ragal yàlla toroxlu toroxlul yàlla ragal yàlla ñooñu dañuy texe kon yow maadaama jàpp nga yaa ngi ci yoon boobu rek rafetal njort ne bokk naa ci ñuy texe donte ne nag doo ca dogu waaye sa njort yépp la gën a rafet daal mooy man yàlla dana ma jéggal tabbal ma ajjana yàlla na yàlla defal ñu ko gannaaw bi it suñu borom mu ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayiatin fa la yujza illa mislaha wa hum la yuslamun naam naam waaw kon kooku man sama téere indiwu ko waaw sama téere indi ala kulli xaal man amila saalihan lu mu wax man amila saalihan waaw kon day kon kon day wax ne man amila saalihan déet man loolu sama téere yeggagu te waaw kon danaa ca yegg <laughs> mais man li ma jàng fii daf ne man jaa bil xasana fa lahu ashru amsaliha dana ko ñeel euh, fukkeelu la la mu indi wa man jaa bi sayia ku indi lu ñaaw nag fa la yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun duñ ko fay lu dul lam liggéey ci kenn du ko toon waa gaa yi ndax jullit warul rafet njort ci yàlla ci loolu yàlla nee na tuyaaba boo def ma bindal la dix bàkkaar boo def ma bindal la un dix dix yi ak un un yi la ñuy calculer lu ëpp nga dem àjjana gaa yi ndax jullit wul rafet njort ci laal la aham képp ku sàggan ba say un un ëpp say dix dix kenn gën laa texe bi gis ngeen ca lay doog wax nag kon mu ne suñu borom mu ne man amila salihan min zakarin aw unsa koo xam ne daa def lu baax na doon góor nga wala jigéen wa huwa mu'min ca boobu fekk daa gëm fala nuxiyannahu xayaatan tayiba daañ ko dundal dund gu teey wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun gannaaw ba daañ ko fay payam lu gën lam doon def ca it mbokk loolu la juri dere fa njor boo gëmee yàlla na nga ko war a gëmee jaamu yàlla na nga ko war a jaamoo yàlla teeyal sëg dund dund gu teey nag bokkul ak dund bari nit ki dana nekk ci benn immeuble gratte-ciel boo xam ne moo ko moom ay avion ñu ngi koy xaar ay racham ñu ngi koy xaar te bu tëddee du nelaw guddi am déet nga gis koo xam ne néegu ñax ba mu tëdd ca Kédougou ci lalu tagaram réeru sumbeem day xam ne war ba suba jot amul benn problème ndax xol bu neex ci biir xol lay nekk dund gu tey ci biir xol lay nekk nekkul ci décor bi lay wër gis ngeen léegi nag bu dee bu la doon tënkal daal lim la doon jàngal lépp mu ne jàpp ci lii mooy xulaasatul xaw jappal yow jam bi bëgg téggino ak sa borom أن شكر المسلم ربه على نعمته شكر المسلم ربه على نعمته جلد سنت جمي سنت برومم تي خيولم على نعمه تي اي خيولم وحياؤه منه تعالى اك رس جمي رسي الله عند الميل الى معصيته ارمجن جي جم تي بكار wa sidqi ina al inabatu ilayhi dëggu ci dellu ci moom toroxlul ko wa tawakkul alayhi wa rajau rahmatihi wékku ci moom yaakaar yërmandeem wal xawf min niqmihi min niqmatihi wa xusnu zanni bihi ragal mbugalam rafet njort ci moom fil injaazi wa'dihi te ne yàlla dana ko sottalal lam ko digoon wa infaazi wa'idihi ak it nam mën a sottee tukk yam tëkkoo fi man shaa min ibadihi ci ku ko sob ci ay jaamam huwa adabuhu ma allah julit lii lay boole tegginoo ak borom nam war a tegganoom wa yaqduru mi ngi noonu mu ne it wa bi qadari tamassukihi bihi kemtalaaye nag la nga jàppe lii ma la wax wa muhaafazatihi alayhi ak na nga koy wattoo ta'lu darajatuhu ca la say daraja di gën a kawe te kon jullit ñi yéemuñu wa yartafi'u maqamuhu wa tasmu maka uh, uh, uh, maqamuhu wa tasmu makanatuhu ca lay yëkkati ko say taxawaay تلي كوي لغا خمنا ميسا فلاس يالا وتعظم كرامته تلي مجس كرامة فيصبح من أهل الولاية لله ورعايته مويدن بغا خينك نكت فيت يالا نكت يالا دي سم ومحط رحمته دون كو خمنا دي واتش يرمان يالا ومنزل نعمته دون آه منزل نعمته واتوايو لغا خدم يخيو البرم وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول حطول الحياة لي لنجي جسني لغن مغتل جريد ساكو mooy mu dem ba yegg ci ñi nga xam ne yërmande yàlla day wàcc ci moom fu mën a toll yàlla di aar fu mu mën a toll yàlla di ko waajal xéewal fu mu mën a toll di ko ay mbugal àdduna ak alaxira lii mooy la gën a màgg lu julit di sàkku ci kaw suuf yàlla na yàlla jagleel ñu ko jagleel ko bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ana inda zanni abdi bi ah, suñu borom day wax ne sama jaam bi li ma joort ci man loolu lay fekk ci man euh, doonte ni zann mooy loo xam ne ni danga koo dëggal ki nga xam ne dafa joortu ne yàlla subhanahu wa taala dana ko yërëm la cay dëgg mooy daa jaar fa neex yàlla su dee jaar nga fa neex yàlla jortu ca na ko war a joort su boobaa dangay gis ne jortu boobu dañ la jëriñ amma la nga xam ne moom mooy jort bu ñaaw jullit du doon koy jort jort bu ñaaw digganteem ak boromam gannaaw ba mu jaamoo boromam jalla wa ala allahuma am na lu ñuy taman nii mooy di jort danga am xéewal te defoo dara lu baax loolu kenn du ko tuddee jort bu baax loolu moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax kenn ci yéen bu mu dee lu dul ma rafet njort digganteem ak boroomam te mooy yàlla dana ko jéggal dana ko baar lu waral loolu parce que julit day def lu baax di ñaan lu baax ba ba muy dajeeg boromam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam mu ne mu ne غنم بتاعي غنم ازاي بقى كان عايشين في فترة من الدواني فترة من الدنيا آه، واحد منفصل من أراد واحد يعني الله خوف خوف من الله واحد من المستدنا wala kulli xaal nit ki bu waxee ak bu leen ko tontu su dee xadis ba loolu dañuy xam ne dañ koy tuddee ay teggin teggin la yoo xam ne tegginu mbugal waaye loolu dañ koy fekk société boo xam ne dañoo jàng diine société bu jàng diine mais suñu société yi nga xam ne diine xamuñu ko yooyu mun a doon lu ko jëfe amma ñi nga xam ne société boo xam ne ñëpp xam nañu ne nit ki bala ngaa wax ñi dañ nga koy nuyu foofu lañ koy mën a appliquer su dee na xadis bu nekk na xadis bu wér mais société yi nga xam ne dañ koy dund rawatina yow mi dem Occident yu mu dem feneen nit ñi dañuy ñëw rek ne jaay ma wala sax nañuy nuyoo sax du nuyoo lislaam loolu moo tax ba yu mel noonu daal da nga koy da nga koy euh, wax ak moom laayu ko biir na ko nag ëllëg boo ñëwee dangay nuyoo mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma waaw amma bu dee wàllu nodd moom dangay ngay gis na la nekkoon cosaan moo di ne ne ku nekk jàkka ba nga xam ne moom ngay fas yéenee wuy ji nodd boobu mooy sa nodd cosaan ba ngay topp نودكات بنان لا حي على الصلاة نغني لا حول ولا قوة إلا بالله ندخ يو لي وو أما جمونا بيغا خمنا دانيي نك مثلا في من غا توك دي ديغ نودو وا غرامي دين دي ديغ نودو وا فدوا دي ديغ نودو وا سوبريم يو يب دانكي مني ديغ بني بي من غا ديغ نو فك نودو يوي loolee moom bu dee ne am nga benn noddukat boo xam ne topp nga ko ba def la nga xam ne mooy askar yi la yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon loolee moom nekk na wàcc la na du nekk nag ne fu nekk nga tontuwaat ko allahuma ay askar la boo ko defee mën nga am tuyaaba waaye daal tegguñu la ko lañ la teg daal mooy noddukat ba nga xam ne ne moom wóor na la concerné na la nga nga wuyu ko wallahu subhanahu wa taala alam naam naam jàng boo ko cee am xam ne moom moo ko xam xëy na ci àll bi wala wala bu ne ci dëkk lañ day kat groupe jàmm. dañ koo kuréel ak ñu ko cee pare wala koo wane ni amee lu kuréel ak bu fekkee xaw na am naa lu jaay ndax ba dem nga jëndee. pour bu ñuy loo xam ne dañ ko for nga ni dañ ci àll bi dañ koy jël di ko denc gars yi dañ ko jël état bi da koy jël. ah xamuñu borom ah waaw waaw ah ah, ah, ah waaw waaw. waaw ala kulli xaal euh, xar yoo xam ne dañ koo for xamuñu boroom loolee moom dañ koo war a sàmm sàmm googu boroom xam-xam yi wax nañ ci ñaari mbir mooy nga téye ko loo xam ne nii dem na ba jaadootul suñu demee ba jaadootul loolee da nga xam ne la ca gën moom mooy ñu jël ko sarxel ko boroom sarxel ko boroom loolu mooy la nga xam ne moo ca gën su dee ne da ngaa yow sarax da nga bokk ca ñooy saraxu mi ngi noonu ah wala boog soo demee ba yor bi diisu la nga jaay ko denc njëg gi su borom ñëwee nga xamal ko ne xar yi da nga koo jaay su dee nag ñëwul ba ñëwul loolee moom bu dee ne ab état ku représenter état ñëw dañ ko war a teg ci loxoom ñoo ñooñee nga xam ne ñooy état bi ñoo ko jël teg ko seen loxo heure buñ demee di ko jaay na am julit bu mu neex mën ngaa dem jënd loolee moom da ngay xam ne dara nekku ci état moom lépp lu muy jaay jël ko jullit am na droit dem jënd ko même douanier yi li ñuy jël man naam la ëpp la ñuy jël sax teguñu ko ci yoon waaye maadaama état la moo ko jël dugal ko ci moo moomeelam wëlbati ko di ko jaay su boobaa yow jullit dana dagan nga jënd ko wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah fekk imam jógagul wala kulli xaal bu dee taaye bi ci digg bi moom soo taaya ba julli ci yonent bi imam jógagul it da ngay noppi rek ba imam jóg ngaan da jóg amma bu dee taaya bu mu bi soo taaya ba pare ah imam jógagul loo mën ci ay ñaan mën nga ko ñaan lo man ci ay ñaan man ko ñaan même bo do wax astaghfirullah astaghfirullah man rabbana atina fi dunya hasana lo man ci ñaan man nga ko ñaan ndax euh, gannaaw taaya euh, place la bo xamne place ñaan la amma bu de taay bi ci digge bi xamuñu won yonent bi alayhi salam dañ ci def ay ñaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam da ngay tayé yépp da ngay tayé da ngay taaye taaye ñetti tayé lu bari borom xam-xam dañ naan boo defee loolu da ngay am ñetti taaya mais boo li la yóbbu nga sujjóot fukki sujjóot ci julli moo la yóbbu ci ñetti taaya ndax tey boo ñëwoon fekk ñeenteelu rakka bi imam siggi na te da ngay ànd ak moom sujjóot day da ngay am ñaari sujjóot bu pare dangay ngay indi ñeenti rakka muy fukki sujjóot la la dugal ci fukki sujjóot mu la dugal ci ñetti taaya loolu kon mbokk mi ngi noonu ñu ngi ñaan waaw xanaa ñu mujjee ci mbokk bi rek bisimilah waaw ayamul biit moom mi ngi mooy ayamul biit ayamul biit mooy ayamul biit loolu moom mu ne su koo jiital li nga xam ne daal mooy mooy am na jullit bu mënoon di woor weer wu ne ñetti fan ñetti fan noo ko mën a woore ci weer wi suñu borom mu ne man jaa bil hasanati fa lahu ashru amsaliha di léegi lañ ko jàng kon képp koo xam ne weer wu ne woor nga ca ñetti fan danga mel ni ku dëkke koor loolu nag bu dëppook ayamul biit loolu mooy la nga xam ne mooy la gën allahuma lu dul koo xam ne da daan def ayaamul biir yàlla dogal mu am ngant jigéen la bu nekk ci ay réglam wala yow tombe na ak sa tukki wala tombe na ak sa feebar insha allah bu ayaamul biir yi passé it soo ko wooree dañuy jàpp ne am nga yoolu ayaamul biir mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain